faral di wax bi nee na ñu ni la yaa moom nga xam ni yaa moom neexul nee na neex mooy lu ñu wax la ni yaa nga xam ni yaa te Serigne Mouhamadul Moustapha bi ko Serigne Mansour Sarr di wax ni moom moom da wax ngir feddali ko waaye fekk na mu xam ni moom moom tabaarakallahu Serigne Mansour bi mu jëmmalee barab bi te ñu waxtaan ci wàllu Cees bi ma ko ko mu ni ma mu ni dafa baax rek mu ni moo tax mu naan nañ ko abal waaye fii li fi yëpp moo ko mu jox suñu mbokku tarbiya Cheikh Ahmed Tijani Sarr ndigal ñu ko woon Haj Makhtar Ndiaye nga ko di ko mu yem ci chaise waaye lépp lu Serigne Mansour Sarr di soxla ci gàmmu gi nañ ko mettre à sa disposition. tabaraka moom taxawaay bu nit bët ci gàmmu gi Serigne Mouhamadou Moustapha def na taxawaay bu ñu tegul bët ci gàmmu gi seen Mouhamadou Moustapha def na kon dafay jaar bu ñu teewee ci kanamu gor ci kanamu àdduna ñu sant ko waaye nag wax dëgg yàlla si Mouhamadou bala nga naan li mu am dina ko am war ngaa ba xam ndax mu am mayoon la ci te li Cheikh Ahmed Tijani li tax mayam particulier waxuma li mayam waaye li jël sax Tijani ndax dafa am lu leen ëppalee mooy fëyi Cheikh boo gëstoo bi la xam ni gëmul xaar baax yi tere na dem ne boo yi ma لا منتهى لكتابها وهمته الصغرى أشد من الداعي أركي ننبي te dafa wax nit ñi may ñëw ci kaw suuf dafa am benn objectif bu pire bu nga di indaale mooy jukaatu li awali amri ila sadrati rahmaniya nee na li nga xam ne mooy sama objectif mooy àgg ci yàlla ku bëgg ko waaye moom tamit Cheikh nag bi ma amee objectif boobu dafa nekk njëriñ waaw te damay wax moom tamit Cheikh ca ndawam la dalma leen yemmat ndax fi ndaw fi nee na ni dalal ndaw daara dañu Cheikh am ci Cheikh mu xale ci xale daara mooy ci juróom-ñaari laaj moom nga gis alxaaji Cheikh Gassama radiyallahu anhu di wax naan ne leen cey ci juróom-ñaari at ci gàll ndawam jëpp la jeexee ci wër di jàngal ba doon wër mu ngi bëgg ci daan jaayu bàyyi fàcce xanayaan dem saxiix de muslim buxaari da ko mokkal xadiis da koy jàng ci naxu da nga naan mooy ibnu ma ci ubbee da nga naan mooy imaamu Maalik pour ñëpp day dalal nag ci di baawaat ba benn bopp soo naan waa ji mooy la kéemaan ba yónnee ne ko jéem ay ay ay ba tey ñu dem ba moo tax bi ñu nekkee ndaw mu fi cher sëriñ bi koy jàngal da ko mës a seeti papaam ni ko Ahmad al Tijaani yi bés na bi ndigal am na leneen lu ko ndax dégg bi nekk ci Ahmad Tijaani yi ak intelligence bi ci Ahmad al Tijaani yi mu ni ko ay atam yeen ko ca moo tax borom bokk na ci yëngul nan la mooy di jëflante nit ki gàttoo ak li yàlla di nangu rek mooy koy jëflante jëflante la ndox ci manque de responsabilité moo tax sëriñam ak wéyu la sëriñu daara ñu tëju di natt sëriñ Cheikh Ahmed Tijani suba ba ngoon jot lu ñu ko laajte ñu Cheikh Sow ba ci yàgg ñu ni ko Ahmed Tijani yi ndax li ngay wax dañ koo xam mu ni dama ko xam dëgg ñu ni ko foo ko xamee mu ni fu ma ko xamee nag laa xam moom yëg naa ni xam naa ko waaye fu ma ko xamee laa xam mu ni waaye daal mu ngi yëg naa ci bi may dawal tey mu ngi am na benn loxo mu ngi doon tegu sama jëndi ko fekk mooy loxo maamam te gis naa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ndax sama maam mu ngi moo ma wax ni ma Ahmad Tijani dafa am ñetti xam-xam yu ma yàlla jox ma fas yéene ko transféré ci yow xam-xam bi ñëpp a ko bokk moom la ñu tuddee ak sharia xam-xam bi nag ñëpp bokk ñu ko ñenn nag la ko yàlla teg leen moom la ñu tuddee ak tafawu moo tax tafawu ak ñu koy om loo tudd ñu di bidaa da ngay xam ni la seen chance ñetteelu xam-xam bi nag mu ni ko al isra wal mi'raj mu ngi ko ci lema ko borom bi subhanahu wa taala joxoon moom laa fas yéene taxteel la ko tey ci taxoon waaye nëmbatu waaw moo tax sëñ Cheikh Ahmed Tijani mag ñi di wut ci li fa ñu ngi ko dóor rëcc ndax engrais yi ñu nekk na tee mag dem sëkk waman bi bi ustaade aluudu bi mir bii yaqiinu yaqiinan كل هول بموته ومن لي بشيخ أعاد ذي معارف طبيب بأدوان الفؤاد مسدد يحيل النحاس خالص الذهب الذي يقلب بين الناس باليد فاليد ومن لي بشيخ بالشريعة كلها بصير بأسرار الحقائق المرتاح ومن لي بشيخ بعلوم غزيرة يطهر أدنى أبدانه الشيء ومن بشيخ ذي خوارق شبة سرايا درب المولد بيده ومن بشيخ لا يضام مولده يقدس غما يوم أو فبع رصده إلى أن أقر فلبت فشئت الناس في كل موطن وجلت فشفت الجيل من كل فكفة إلى أن أقر بين باب وحاضر بأن يلتمس جهده بهذا وجوشه ولن يكمل الأوصاف إلا لواحد يغنى أبا العدل دليل من المختار نجدا لأحمد وأحمد نجد ولي محمد وهذا أبوه سالم وهو خامس لأجداد شيخه سيدا بعد سيدي وتحوش تفصيلي حيث انتسابه لفاطمة الزهراء بنت محمد مع الشرف العلمي من حيث كشفه عن الغالطة الحشر في كل مقصد إلى الشرف الديني حيث طريقه طريق طمان الهاشمي الوعي فمن مثل ما في المشاهد لا يرى wala yurad aw yutma wa yushad ah, mu mel ne nag xam naa dama di woon ba dañuy dugg ci waxtaan bi rek. xam naa dama di woon ba dañuy dugg ci waxtaan bi rek. incha allah ñu barkeel ci ci biir Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu mel na ne nag waxtaan la boo xam ne xam ne ne nag tuuti concentration mel na ne ñëpp ba tey waxtaan la boo xam ne bu ñu ci jugee rek ci mu yitte mel na ndax dafa mel ni nag dinañu tàmbalee ci diine waaye dinañu jeexalee ci philosophie xam naa littéraire yi ak mystique yi dañuy faral di mooy li ci téere yi ak mystique yi dañuy faral di wuute ci baat ndax ci téere yi bu ñuy tudd baat dañu koy ak ci étymologie ñuy tudd baat dañu koy teg ci maanaam moo tax bokk na ci baat yi ñu mooy baatu al bidaaya bokk na ci bu leen ko littéraire tuddee université Fay waaye an nihaaya bu leen ko mystique tuddee université technique mu mel ne nag ñoom mystique yi dafa am problématique bu ñu posé dañu laaj an nihaaya boo demee ba yegg ca mooy lan an nihaaya lan waaye ñoom mystique yi li ñu bokk d'accord mooy hiya al awdatu ila al bidaaya ma dégg ci al murshid ruuxi Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy téléphone. waaw man dégg eh, yéen a xam ne tuuti la ñu bidaaya mu firi ko firi bu gàtt ñi boo demee ba nekk mu ni la ngay def mooy delluwaat bi ndongo gis na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bari na lu ko yàlla defal yonent yi di ko yónnee te ci loolu la jógee ndax yonent bi sallallahu alayhi wa bépp xëy xëy am ku ñëw ni dafay jéem a rafetlu nit yi sallallahu alayhi wa sallam ak yonent bi beeg li ko yàlla defal yëpp nga xam ni waxaada ma xaada laakin laa yumaathiluhu laa yumaathalu min tawaadu wa xushuuci qalbi wa rajaa yonent bi ëpp la ci ñëpp gën ci ñëpp fii ñëpp ba pare dina la def gerte ñëpp gën a modeste ñëpp ëpp gerte ñëpp ak li ko yàlla defal keroog bi ko waaju ne yaay kan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tudd Sayyidatuna Aïcha sayyidatuna Amina radiyallahu anha ak li ko yàlla defal nga xam ni ci biir histoire fan bari na teraanga yu yàlla defal ci seen ñu baax waaye teraanga yi maa ju sayyiduna Muhammad nag sallallahu alayhi wa sallam yàlla sayyidatuna Amina la ko jagleel وجبلني أن به لآمنة الفضل الذي شرفت به حواء من لحواء أنها حملت أحمد أو أنها به نفسا يوم نالت بوضع ابن الولد من فحال ما دخلت النساء وأتت قومها بأفضل mimma hamalat qablu Maryamu al-azraabu loolu Sayyidatina Aïcha borom bi subhanahu wa taala defal ko ko waaye teewul bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di tudd bi ko mbokk mi ni yow yaay kan mu ni ko man mu ni ko waaw di ko moytu jigéen di ñëpp di bokk di ñëpp bëggoon na ko ba pare ñàkkoon pàkke ba ban tuddee seen waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ko wax xay jëpp Jibril taxaw ci kanamam di ko yëgal daal daal sa tontu bi tax na asamaan na nga yëngu الذين تسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وتخرج عشقنا لوالج لم يشفيها إلا الصلاة على النبي محمد في العبد من البداية ممكن النبي صلى الله عليه وسلم بس جيب لي Milostaborosam yónni dafa waxoon li naa la laaj nee na ñaar bu la ci gëdal nekk malika nabiya wala nekk abdal rasula ñu ko tànn naan nekk abdal rasula moo tax bi ko yàlla di defal yi nga ni bi mu ko ko defalee tey il a rabaissé par rapport aux gens tous les antéprophètes que lui appeler à être leur unique instituteur mu di al-Isra wal Mi'raj bi ko ko yàlla di defal waxul bi nabiyyihi waxul bi rasulihi subhana alladi asra bi abdihi laylan min al إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. moom la nit dama góor gu tedd ne sëñ Babacar bi radiyallahu taala anhu di ko wax ci am si yàlla akrim bi fadli sayaasi qad tara wa tara لشنا لمرضاهما للعرش صراط ضربت إمامته من بين أمرته من أنبياء ورسل ذات الإيمان جعلوا السماء سماء والسفير أمين بالأمين فتذكر منه عبواه مكلما لشهير الحمل بارئنا ما زال غضب وصاد بعدها هو الذي بوتي من بلده فولدين وقت النوم ndax xam nga boo dellu di ndongo borom bi subhanahu wa taala delloo la te ci biir delloo yi danga dul xam ndax yàlla dafa bari te yàlla lu ko neex def ci ku ko neex moo tax biir delloo boobu borom bi subhanahu wa taala ci ay nitam la ko tàmbalee bi subhanahu wa taala delloo si na Suleymaan ndax xam nga Suleymaan adviya na da ci ñoom yëpp pour un seul homme gis nga moo wutale Suleymaan Suleymaan ak Yuusuf loolu moo leen wutale gis nga Suleymaan li yàlla dajale ñu ci moom yëpp décompose décompose ko waaye Yuusuf li yàlla dajale ci moom décompose ko mais ne ko sama tubaab la waxee décompose ko ndax Yuusuf yi yàlla dajale ci moom dégg nga ni Cheikh wax ko il était roi il était gestionnaire et le plus grand d'ailleurs et il était prophète Yuusuf fils de Jacob Jacob est prophète et philosophe père d'Isaac Isaac père d'Ibrahim petit-fils d'Abraham patriarche des patriarches perdu mon recueil éternel pour un homme Voyez positionner Suleiman pour qu'un seul homme voit qu'un ami. مطمئن بملكه ولم يقضيه في حالة من الطغيان. نحن سليمان borom bi subhanahu wa taala daf ko may li ko yàlla may mooy nubuwa waaye bi ko yàlla may nubuwa ba noppi na Suleymaan ñaan di ko Suleymaan ñaan mooy rabbi ixfirli wa hab lii mulkan laa yanbaghi li ahadin min ba'di ak ñaan Süleyman'dan boyunca Subhanahu wa Ta'ala mulke de kebe. waaye def ko wax ni ko li ma bëggoon mooy nga may ñu nguur ko kenn mësula am te kenn dootu ko am borom bi subhanahu wa taala nangu na ko ñaan yàlla ndax xam nga nguur Suleymaan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 waaye gis nga Souleymane kenn dimbale wu ko foofu waaye Souleymane ñu ngi ko dimbale ci tabaru gerte gi wa huwa ala kulli shay'in qadir moo def particularité bu Souleymane ndax bustaana na ko aaya ba waxee wax wa xushira li Souleymane junuuduhu min al jinni wal insi والطير فهم يوزعون borom bi subhanahu wa taala defal ci Suleymaan waaye Suleymaan bi mu an nihaaya dem na ba yëg ci buur la bi mu demee ba yëg ni buur taala def loo dina ko te bi ko borom bi subhanahu wa taala di delloo yónniwul malaaka yàlla xorom la yónni ndax xam nga Suleymaan yàlla ci boppam moo ko formé woon état de choix moo tax moom Suleymaan buy jub ya koy topp da ay bàyyi ba bés moom Souleymane bi muy jub xorondom bi yëpp ko te Souleymane responsabilité bi mu am ci tànn njabootam xorondom bi même responsabilité la am ci tànn njabootam xorondom bi waxal ay njabootam udxulu masaakinakum لا يهزمن ابي سليمان وجنوده وهم لا يشعرون mu ni su ma sañoon ngeen jëf seen ay disposition balaa Suleymaan ñëw ñu leen écrasé waaye xam nga Suleymaan yàlla moo ko tàggataloon ngelaw ba loo wax ngelaw li ñu ko moom Souleymane bi mu ñëwee déglu wax ci bi mu ñëwee ba yegg ci xolom bi ni ko xanaa dara foog dama yor ci koy buur xolom bi ne ko ci koy buur mooy lan mu ni ko mooy yàlla jox la nguur jëloo nguur gi sant ko ci def ko de travail ngir di ci service de peuple waaye dañaa jël nguur gi transformé ko def ko yàq koo ci mën a nangoo. mu ni ko xanaa dangaa ko jikko ni moo nekk ci man Souleymane ni ko ndax la mu ni ko laa yàq li ma Souleymane ay xoolandoom bi ne ko dafa mel ni nag dañuy déglu sama wax ndax baatu wërum laa ngi soowul wala naa ngi dégg du ngeen ko tey waaye fekk borom bi subhanahu wa taala dafa am xikma bu tax mooy bëgg naa delloo ci Suleymaan moo tax Suleymaan daal di laaj xorandoom ni ko bu fekkee am na lu ma mën a baaxee xorandoom bi ni ko ndax ngelaw li la yàlla tàggatal mu ni ko xam nga lu tax yàlla tàggatal la mu ni ko téye mu ni ko yàlla la mën a Muito quando do livre, o inútil. Muito quando ele seca. Muito quando ele anda no poder de angar. Ele se fugia e ela fala. E muito livre, que se tem. Muito quando sabor. Muito quando dá muito sabor. Muito quando foi ter que ele tem que guardar. mu ni ko te fa ñuy dëkkee ëllëg mu ni ko kenn rek dafay buur mooy ki nga xam ne mooy malik yow mu ni ko kon mu ni ko da ngay fexe di sax gënal leen di sax mu ni ko te lu bugga bi moo sax waaye mu ci saxul mu ni ko bi ci def mu ni ko wawari ba Suleymaan doon na li nga doon sa baay Daawuda ndax xam nga li la ko may mu ni ko moo ko jur mu ni ko dégg mu ne jur moo ni nga doon ko mu ni ko xamoo ko woon mu ni ko dégg mu ni ko ne ko mu jàngal mu ni ko noo tudd mu ni ko Suleymaan mu ni ko sa baay mu tudd mu ni ko Daawuda mu ngi ko sa bàyyi bi tax mu tudd Daawuda mu ngi ko ndax tawa jarahata qalbi mu ngi ko am na ay ñuul ñuul mu ngi ko yuy nekk ci xol mu ngi ko te bu duggee ci xol kalla bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibun mu ngi ko bu ci duggee xol dootu mu ngi ko te ñuul ñuul yooyu borom bi subhanahu wa taala defal tawfeex sa bay Daawuud mu ni ko ba mu saafara ñuul ñuul yooyu mu ni ko dawaa sharahata qalbi mu ni ko loolu la yàlla transféré ci yow defal la sa ilmul qalbi mu ni ko moo tax ba tudd Souleymane looloo ma may looloo la may ma may sa Souleymane Daawuud mu ni ko bu la sa bay jur woon nga doon moo waral Sëriñ Babacar Sy radiyallahu anhu tey mankaan juróom yi bu ma teree doon Seydi El Hadji Malick ndax am na loo xam ne du affaire bu deret waaye leneen la dalilu cheikh dalilu cheikh nuuru abiihi fiihi wa nuuru abi abiihi wa murshidihi ka xaaji cheikh wal kidami ghaazi a'immati diinina wa mushaddidihi wa mu'tiya li abi al-Abbaas nuuran ونور المصطفى قد ينطلي waaw mu ni ko loolu moo la may titre wa warisa Suleymaan Daawuud mu la tudd moom moo tax dafa fari Suleymaan moom it teel رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين خرج وهو تدبيري برمي سبحانه وتعالى delloo dina Muusaa xam nga borom bi subhanahu wa taala li mu delloo te Muusaa mooy ak ku yàlla mën tey mën a yegg ak yow bu yeboo nga dee ndax danga dul xam fi mu yegg ak keneen te pourtant danañ wax ni li ko yàlla defal muy nekk ji mu nekk l'interlocuteur par excellence du ma wax ni doy na cër waaye damay wax ni ëpp na cër ndax borom bi subhanahu wa taala wax na wax doy cër ëpp na cër wa hal ataaka xadiisu Muusaa إذ رأى نارا فقال لأهله كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أشد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس هو وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إلا الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فجردا وما تلك بيدك يا موسى قال لك عصايا أتوكأ عليها وأبش بها على غنمي ولي بها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فبما هي حجة تسعى قال خذها ولا تعى فنعيدها سيرتها الأولى تنكر أخرجت ويكر من موسى bi muy waxtaane waa banu Israël am ku ko seen laaj ni ko xanaa de li nga am ci xam la ci yàlla may may ko kenn Moussa ni ko mukk gis na mukk jooju yàlla def yàlla nangu moo tax mu boole ko xabe yu mukk ja yàlla nangu xam nga Moussa bokk na ci li ko yàlla dimbale mooy ku am humilité la ndax keroog bi ko yàlla yónnee ci Firawna mu gis ne xëy na bu àndoon rek boppam xaaroon ci lay ëpp solo mu ne yàlla wa axii Haaruun wa afsahu minni lisaan kon nag waj'al lii waziiran min ahli Haaruun axii به أجري وأشركه في أمري كي أسبحك كثيرا وأذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. Ümitsizim. Wàññi keroog bi mu gisee Xadir xam yàlla xamal na Xadir lu mu ko xamal mu ni ko xel extérieur على أن تعلمني مما علمت رشدا mu ni ko li ma bëggoon topp la pour nga xamal ma ndax Moussa bi muy gisee Xadir fekk na jàng na ba noppi soxlaatul ku ko jàngal waaye li mu soxla ko ko xamal moo tax Xadir nag ni ko innaka lan tastatia maay sabra mu ni ko dama jëmm yi mu ni ko jàng nag dina sori li tax Xadir gëm ni yëf yi dina sori mooy dafa yëg ci Moussa ni Moussa dafay ànd ak moom waaye du ko topp waxi ma ndax ci ngay topp ci ngay àndal bu la neexee laaj ko bu la neexee atte ko waaye ci ngay topp doo ko laaj doo ko atte ndax li tax ñuy bañ ci ngay topp nga di ko laaj wala nga di ko atte dafa am ñoo xam ne ñoom boo bu ñu fa boo leen attee rek dugg ci li lay dugal ci kàmb mooy da nga leen di bëgg a attee ci xel nit da nga leen di bëgg a attee ci xel nit am na koo xam ne ñoom bu ñu fa tolloo ñu tëddee xaw ma ba xam yéen a ngi may dégg wala dégg da nga leen di bëgg a àtte ci xel nit te am na koo xam ni duñu ko toll duñu def lépp loolu nag ku ko bëgg a dégg da ngay dem ci teg ci Cheikh Ahmed ci Cheikh ci Chawahirul Maani da mu ngi na arab ma dana nekk ala samawati wal ard والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما شديدا. وسيد محمد المصطفى دلوا لكل النبي صلى الله عليه وسلم. رغم الكتيبة أتتك الأمانة ملقاة تشهر أجيالها فلم تك كافة تمشي على رجلين أو أربعة وإنما كانت الأمانة ذات صلة ثلاثة. الحق والعدل والمعرفة فمن حق كان محمد عين الحق وطلعة الحق بالحق وصاحب الحق ربين حتى جاءهم الحق ورسوله فبالعدل كان محمد عين رحمة الربانية رحمة ألحازت كل المعدلات في كتاب الله وعلى آلهة moo tax mu ni ko kon bu ma àtte waaye li tax buñ fa tolloo yi ñu bañ ku di laaj mooy boo leen di laaj lim leen di laaj te mooy pour laaj pour xam waaye dafay doon tàggu mooy laaj pour moo tax xaaral muy Moussa nekkoon fekk li tabaate bi فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك مثل ذكرى mu ne ko charte bi may teg mu ne ko mooy bu ma laaj loo war a xam dinaa la ko leeralal waaye ci kaw mu jot moo tax فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة على طلحة قال أخرجتها لتغلق أهلها لقد شئت شيئا إمرا mooy dañu toog xadiral Moussa yëg ci gaal ñu ne xadir yow de doo fay ci nga àndal doo fay waaye xadir yëg ci gaal gi rek commencé ko bëri Moussa ñu ko ñu ne def boo ko Moussa ni ko ni nga def foofa dégg mu ne ko ñi teraale ci nit ñi la bëgg leen am ndax loolu nga def tegoo ko fay xajul ne ko ndax si naka leen def ko fi àll ay fatra ndax waxuma la woon ci juum bi jëkk dina sori ndax ne man naa la ñu àllaaj waaw mu ko laajul axir nii bi may def wala tuuti yëpp nii ñu ànd bi usra mu ni ko ñu ñëpp na man mooy danaa bàcc خرج من أحدها فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا لا خضر مؤلف الكتب موسى يجلس بين حدث xabrit di ko xool mbak yaa ngi leen di xajara Moussa nekk di ko li nga def yaa ngi na xam ni tegoo ko fenn ndax xale la dara nga di ko rey ci teguloo ko fenn mu ni ko innaka lan tastatia maay sabra mu ni ko ndax waxuma ne ni diw nga ni jëf dina sori waxoon naa la lu ma laaj ni ko su ma la laajatee na fa فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يطيبوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقالوه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا demal tuuti doom lu yàgg Moussa xaw ma ñoom ci benn dëkk wax nañ fa fekk ñun dañoo xiif te bu ñu nañu ngeen dimbal li ñu lekk waa dëkk ba kàttan waaye xam nga jib yi buy waaj a daal xam nga njëkk bi ñun ba moo tax ñu ko dina def def mu benn mu ne ko daal ñu ñu xiif ñu bañ ko dimbali nga leen di dimbali ci seen xamal na li ko ragal di raw bay nii wa bay nag mu ni ko yëf yi mu ni ko mel na ni dina waroon a yem waaye sa bu nag bi bu ko bi tëdd yi maanaam dañ ko fi amalay ne sa borom mu ni ko li laxatu ni ñett yi ba mënoo ko mun a dégg mu ni ko ñett yooyu daal ko mën a leeral mu ni ko am na safinatu fakaana li masakina yaamaluna fi baax fa aradtu an a'ibaha ndax wa kaana waraa'ahum malikun yasqutu kulla zabiilatin xatwa mu ngi ko yi ma tax a bënn gàncax mu ngi ko bënn ma ko ngir gàncax morom waaye dama ko bënn pour sauver leen mu ngi ko ndax moo demee mu ngi ko ba ci diggu géej ni ko am na benn buur bu ba gaare bato mu ni comme yi mu leen xii li ñu ko xii mooy gàll bu ko romb mu nangu gàll gàll bu ko xeebee mu ni ko bu ko nangoo jël njëkk yéeg ko sànni leen ci géej gi ñu baat ko mu ni ko moo taxoon ma doon yàq gàll gi pour mu wër ñu déglu ko xeebee mu ni ko pour ñaareel am na ko فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما mu ni ko xale bi mu ni ko ray ci ma ko ray mu ni ko dama ko ram mu ni ko ndax xale mu ni ko ñaari moytu la dañuy doon bugg mu mbirum yàlla mu ni ko te yoon bi ñu jël bokk la yoon bi seen jamono jël mu ni ko te ma xam ni su ma ko bàyyee mu màgg dina influence yaayam ak papa ba jënd leen ci diine te su boobaa dem safara mu ni ko te comme moom majeur moo tax su ma xoolee ci dafay def ci bu dee jiwu man ci tool yi waaye muy jotu nday ma bàyyam ci safara ndax dina tax lu mag la ci diggante réew waaye ne boo am na ci daaw ba kenn ne yow daan nay يكتب لي في المدينة وكان تحته كلب لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري ذلك تفيد ما لم تستطع عليه صبرا ni ko fugee pour ñun ñi mu ñu ko dimbali ma leen dimbali ma leen ñoom mu ni ko ñaari xale yu nekk ci dëkk mu ni ko trésor mu ni ko bala seen ba ba ba seen ay denc pour ñoom moom laa doon ñoŋal mu ni ko wane ba leen tax di ko ma laaj mu ni ko li ma la bëggoon a laaj mooy da nga wax ni bi may bëgg gaal gi bu seen borom laaj lay mu ni ko Moussa la ko diggé mu ni ko kër Firaaw na mu ni ko bi nga fay dem foo jaar mu ni ko bi di di Daawut parce que bi di di Janna فيلقيه اليوم بالساحل يأخذه عدوك وعدو له lu ko gën a yàlla di yóbbu kër gi am na jaarale ci lu ko ci géej gi lu ko yàlla di la sàmmoon ca géej géej ca kër gi am na ba nga taxaw ñii ci sama kanam mu ni ko suma yàqoon gan yi mu ne dinaa la sàmm mu ni ko bu ñaaree ni xale bi rek dama ko rey te jotee mu ban am dara mu ne ko kër Firawna da nga leen moom la ko génne ci bi nga rey te jotee wu moom dara فوصل الذنوب فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين من ko buñ nekkee bi nga wax ni ma jubal bi leen ñu di defal ñu ma mu ko yow di ngay tànn choix lu tax soxla bu xëy na woon mu ni ko xëy yàlla laaj mu ni ko xëy yàlla laaj mu ci biir bi kon bàyyi bàyyi. wala ñu subhanahu wa taala seen doo ci waat ko alhamdu lillahi bidaya waaye lépp nga doon ñu wax ci xaw bi wax ni wa allamnaahu min ladunna ilman mooy wane ni ñaata dafi nekk ñi téere jàngal ak ñi yàlla xamal waaye ñi téere jàngal ak ñi yàlla xamal ñoo bokk point de départ point de départ ba ku ci ne sa yàlla tàmbaleeg yow mooy jëkkoroon bi ci doom bi ndax le sëriñ Cheikh Ahmed Tijani sama turandoo wax radiyallahu anhu wa man lam yasra bisnihi fa qiraatuhu zulmun annawm bi tamam gis nga loolu moo dimbali mooy mystique yi ñu jàng yëpp dañuy signifié seen borom loolu moo gën philosophie mooy philosophie yi jëm yëpp dañuy ci génne seen borom loolu moo waral ci philosophie boo ñëwee di nga gis am ñu ñuy tuddee des lu dee bu tuuti am na ñu ñëw tuddee des sotti nga xam ni des sotti dañuy wax ni il tente à donner une explication psychologique de la nature waaye gis nga ca baat boobu ñun sofistiqué par exemple ndax nature bi di fi nekk il faut que ñu dugg expliquer ndax li fi nekk psychologie taxawalu ko kàttan yàlla ko taxawal moo tax une explication psychologique de la nature est quasiment impossible waaye li mën a nekk mooy une description de la nature ndax borom bi subhanahu wa taala lu am am na xaqiqa bu tax yàlla na xam amal waaye xaqiqa ba nag yàlla al aashiqin rek la ko xamal moo tax dégg nga sama turandoo ba mu naan ahkamta sayra al xalqi للهدف الذي عجبت بذات قلبه الكامل فقدت قلوب العاشقين شريعها غرقا تطبك عند هذا الغرب moo tax ñu description mystique moom Serigne Cheikh ba bokkee al Achiqi defar ñu une description mystique de la nature mais une description mystique des univers et des univers moom la ñu defar daal di moom Jabal al Ayla. yaa ngi ñëw ba ci maal kutu Cheikh bi si وقل في العالم في العوالم كلها إلا كما خطت به الأقلام فالشمس والقمر المنير وغيره والأرض واليم والأشرف تجري بعين مراقب من نظرته فكما اقتضاه بعين Avec les orbites, j'ai planétique, j'ai hors terrestre, jël numérologie man naa man aswaar man malakul jadid shams man aflaak man arqam fii baa ubaana qaala min uquri sama wa min assamaa pare jël gaz yi jël énergie waxal sadaqaat wa tawqaat fii salbi wal ijaab lahu bilhaam jël archéologie jël géologie jël biologie ما الأرض إلا كتلة في ظلها شيء من الآيات كبيرها وهناك رجال وهناك رجال لا ترضى بغير عظام حين تسال في عظمها وحديدها ورمادها في روحها وجميع الأحباب هو الذي une explication psychologique danaa naa yow mënta nekk waaye li mën a nekk force de kon ñoom société yi li ñuy laaj soppisme du ko toog ñoom soppisme yi li ñuy laaj soppisme du soppisme du ko toog waaye soppisme moo ñoom sotif di ñuy laaj sotif du ko tont waaye sotif moo ko koy tont inna fi xalqi samawati wal ard wa ixtilaafi llayli wan nahar wa ma anzala allahu min alsamai min main fa axya bihi al ard bada mawtiha wa batta fiha min kulli dabba wa tasrifi riyax wa saxaabi almusaxxari bayna alsamai wa bayna alsamawati wal ard la ayatin li qawmin yacqiluun الإمة بخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار في متد لآيات لقوم يعقلون في متد لآيات لأولي الألباب moo lay wan il faut l'intérêt bi wala waaye soufisme bi nag ak suufi bi dañu bokkul ci jëmale seen xalaat ndax suufi bi xalaatam daf koy jëmale ci xalq samawaati wal ard xalaatam da koy jëmale ci yàlla gis nga xalaat boobu muy am mooy def ba koy dugal ci école yi tawxid moo xawul moo xam tawxid boobu wóobiya day doon wala tawxid ulubiya wala tawxid ndax day dem ba yëpp ni yàlla li mu bind yëpp am na xaqiqatam bu tax mu am bu ko defee nag nii scientifique bi di tukkee ci laboratoire bu scientifique ngir di réaliser ay expérience am moom mystique bi noonu lay tukkee ci laboratoire bu mystique am ngir di réaliser laboratoire boo xam ne ko góor gi wala wala ajaar ak yu bëri ma def wa dikrum bi haylana wa madhum bi sabhana wa qiraatum bi hamlana wa ibadatum bi haymana wa asmaa'un musajjala wa inqiraatum bi zilzila aw inqiraatum bi walwala wa ma wara'a dhalika min masaakin aw mushkila ndax ci lay demee ba décroché te al mushahada nag boo ko décroché ne loo xoolati gis ci yàlla loo xoolati gis xaqiqa bi tax yàlla amal ko moo tax sama turóo ba mu ca tolloo ni la wala ne xam ba xarat lana asmaabu ram ba ni ko ci xaqiqati wa kiyaali mu turandoom jox na ko formule te di ko ko joxee ci baax moo tax baax mu tëdd mu dana ko la loo di tey wala dafa tuutal monsieur Guèye bu yaay yi ndax ñoom nit yu yàlla yi baax seen jëf la moo tax Seydina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah waxoon ni maa raaytu shay'an illa wa ra'aytu al-baa'a maktubatan alayhi Seydina Ali dafa waxoon ni lu ma xool rek mu ne dinaa gis ñu bind ci baax ndax xam nga bañu nit yàlla yi dañoo war ñu firi mooy bii kaana maa kaan wa ñu yakunu maa yakun dañu wax ni baatu ñi firi mooy li nekk yëpp man la lii nekk yëpp te nekkagul man la waaye firndul ba secret ba mi ngi ci tomb waaye lii nekk yëpp yàlla lii nekk yëpp te nekkul yàlla waaye yàlla li mu nekk yëpp yonent bi li muy nekk yëpp te nekkul yonent bi kon bu fekkee ba bu fekkee noppatul ba dafa nekk fidul ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk moo tax ba benn lettre la waaye ñeent ko jëm aliful ba xatul ba nuqtatul ba ak shaknatul ba aliful ba di symbolisé wildaayatullahi azza wa jalla moo tax ismu shalaala fi badii xurufi ay hunaalik wa ismu llahi al ba aliful ba di symbolisé wildaayatullahi azza wa jalla الطلبة يمسك يكون سيدنا إبراهيم نقطة الباء يثبت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شكلة الباء يثبت سيدنا أحمد تجاني الشريف الفاطمي وتحماما بالتربيون ومهمات يا رب يا رب يا مولاي يا وداع يا منتهى أمري بلادنا يا والد الصلح في حال محول له إلا السلام فلا يلتني الطاعون يا مقيم العقل للمولى موصله يا من يكون إلى أكنافه البشر يا مقتضى الحال في حرف المداد ويا قياس كل مناد عنده وطر يا سر يا أمن يا مأوى كل ألم ويا أمان ويا من ويا يا فخر يا ذكر يا يسر إياك أن تدعو فاتي ويا مختوم مكتوم يا معبود تشتهر ويا مجد أبا الخلود الإلهي ويا مولاي يا أحمد الشافي يا الله وتنفذ صوفي يتفكر في خلق السماوات والأرض xalaat boobu moo am moo koy dugal ci école tawhid waaye bu dee société bi nag moom xalaatul fi xalqi samawaati wal ard waaye dafay xalaat fi xalqi samawaati wal ard moom xalaatul ci li yàlla bind ci jëmm yàlla lay xalaat te yàlla jëmm sëriñ Babacar si dam ca waxoon kenn waxoon na ko شد عن وصف الواصفين وعن تذكر المتذكرين suy barkeel nee na xam nga ni yàlla may nee na noo ko ni noonu la yàlla la yàlla wu ñu naan boobu ñoom nag xalaat boobu ñuy am moo leen di dugal moo leen di génne ci école philosophie waaye dugal leen ci école philosophie xam naa ñaari termes yooyu bu ngeen tuddee ngeen teg ko philosophie ak philosophie moo tax ñaari yaakaar ñëpp naw leen ba ñu mucc mooy ci philosophie Socrate ma jël ëpp honnêteté wax na ni tout ce que je sais et que je ne sais rien moo tax seen école moom nekk école philosophie nga xam ni lëndëma ko tiimoom yàlla baal ko waaye pare école nubuwa koo xam ne wax na ko dingo am ñu ko yàlla jox ñu ko piloté moo tax wa ana an ayaati tabiatina qad gada yatakhabatu lkutabu wa ruwamu ma fihimu linnas illa xaafilun wa daxiyaru tatwa bihi al-anam wa taxlawu annubuwatu minka والوحي الذي سلكت في نهج سبيله الأقوال وأتى به موسى بأنواع السماء وغدا بإسرة فيه لسان وروى به عيسى المسيح وحوله زمر بأوساط الرجال الكرام وهدى به سهلا بصوت محمد لتزول عن غايته الأوهام والنفس المشرك بأن نور المصطفى الرحمة الإنسان فحضارته من بعدها لمذهبه وكفايته في نفسها وقوته وهدايته عمت بغير تمسك وأمانة أدى بها الإسلام صلوا عليه وسلموا تسليما وآخر دعوانا الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله